Chef Ada. متعت شيف أيدا؟ نعمل سيت؟ Aliás, chefe. Haidi Ontem și faida Haidi, haida Mai m-am mutat și faida Haidi, haida Tu te mutat și faida Mutat și faida Mă mă sa pălilac Să duge ce să cin Ne păita cam ticu Haidi, haida Mai m-am mutat și faida Haidi, haida Tu te mutat și faida Mutat și faida? Не Money, money, Munehe, Nomu. chef. Astou Diago ak Sow xanaa nekk na fi dégguma leen ci kër gi. dañoo génn. dañ génn fan lañ ko. waxal ma ko 有什么地方开始好的？来。 yow kan moo la wax ne restaurant lañ dem maag mi day maanu. waaye yow bu ñu restaurant fan la ñuy jëm kaay añ mu ne suur naa kaay reer mu ne suur naa ànd ak sa jabar bras dessus bras dessous ah dama nga ni mu baax restaurant lañ jëm fu ñu jëm feneen. mais bu ñu demee restaurant yi lan moo ci sa yoon jëkkër ak jabar am nañu droit restaurant su leen neexee. mais ay jabar boo leen yoree dafa loo xamante ni dañ koy war a bàyyi xel ñii bu ndaw la ñuy sot ah te loolu yow waroo ko si daal mais xoolal xale bi ci suuf ba léegi mi ngi jooy ñu di ko néewal doole comme ça mais xam nga ni loolu waru. maa ko xam nga lan la lu ko dal ko def boppam man nag aw ma dara ciy wax wala lu ma ciy def li lépp waxoon naa ko mu dëgër bopp. years. Nana. Bọ́lá ọmọ ni mo ní rẹ̀. Nínú ìwé kò ní ìlọ́gbà lásán lọ. Bọ́lá ọmọ ni mo ti mọ̀. Wà. Bàbá, ní àṣẹ fẹsẹ̀. Jáfẹ́, mo náà ní ọ̀dà. Yọ̀ọ́ ẹ̀rọ. Báyọ̀ lọ lọ́wọ́. dafa gëral bëgg moo metti mais li muy def sax dana lu ko. Asou est-ce que xam nga ni man mu ñëw. si mais li muy man dama cee jaar jigéen bu nekk pour moom benn bu dul warul doon keneen même bu ngeen jotewee mais waroo ko wane doo dara. bëri sër xam naa bu baax fi ngay waxee mais bu doon il faut ma yàqu il faut ma yàqu baykat nekk nit mbaam ko ma kër ci biti. mais soo lan moo tax nga bëgg a forcer li nga bëgg mën am ci demal nga woo sa jabar nga waxtaan ak moom. yàlla xam ni forcé te boo xamoon xam di nga xam ni te nag waxtaan noo demee sama problème sama problème rek la na bu ñàkk xoolal mënoo bàyyi ko foofu nekk. xam nga lenn rek moo métti ci waa kër bi dañ lay sot te wóor na ma ne bu ñu ko defoon benn benn yaa leen man xaw ma lan leen def rek ba ñu lay sot man loolu mooy sama problème. tonton Marco jamono ji lu ma waay def dëgg ko moom ma jël lépp teg ko ci wax suñu bopp ndax Sénégal xamuñu ko ku fayu la ñu xam kër gi lañu nekkoon ci suñu yaram nekk ci suñu salaam benn guddi rek ma fanaan néegu njaag benn guddi boobu njaagu ak jëkkër bu mënuñu am maîtrise amuñu kersa nekk ci néeg bi di def di ma naqaral ma fayu rek Sénégal yëpp sikk ma di wax bu ndaw moo bon bu ndaw moo soxor xooluñu sax ni dañ maa toog wajar banget. Tolong aku. Saya nanti kecelakaan. Rahman, duduk nalu gue ngerti. Tiba lu kumel. Orang sejarah kok kumel Luar minta saja. ba ma jotulee ci dëgg pour ko xëy bis xam nga lan la yow dëgër bopp fii ngay nekk rek nag lu dox ba yàgg rek sa xol bi wadd sa air jeex na nga daal di dee lu leer laa lay wax man ay xaritu kàddu rek laa yor li ma la wax xam naa ko baax Dollar for free. So, as running on asalamu alaikum da islam kana nuna wai ta sani yaw as bëggoon xam li may doy sa kanam ma koy wax yow ki nga ñàkk maandu du question ñàkk maandu de kër gi moo waratul gars yi dañuy xeex ci kaw di xeex ci suuf di affiché ay ndel dawal kaboy loolu rek moo tax may ma war a vigilant te yow mag yow amuñu dem boo sawru lu la waay di wax daf ko war a leer ni que ni ma dinaa ko yegg ndax sa soxna la. man ak yow waruñu benn nëbbu mais da fekk ni gor dafa war a am gàtt baa bàmmeelu biir te man gor la. c'est vrai voilà lu yàqu tuuti neexoon na ma bëgg na neexoon. nanguwuma wax dara waaye leer na man wax dëgg laa la doon wax. yàlla may Non è vero. Aspetta che la chiamo. Sto volendo. Sono una famiglia. Calma. Asu, nasce bene? Bene. Non è bai in fanale. Chiamo, posso vincere. Ok, eh, va bene. مع السلامة سلام نعم بدك بالنجاح تجول انت عارف مالك من اصلا تسمو قلنيخو تسمو قلنيخو ما نعرف اليوم في المقطع لا تخلو معه كنا اليوم تغلب ما خبصة معه بابا man ma añi sama añ bi koy nekk man ma dara du ko yàq. waaw ah, man dama yaay ma am sori léegi wax nga monsieur monsieur vas-y. Hmm, voilà léegi monsieur bi lan dama lay jox hmm. yaa may sang ba mu set waaye maa man tamit dama ci teg sama condition. boo ma cokkitaanee te reetaan nga war ma sànq dañ ciy boole massage relaxant doux wala tonifiant avec huile de serpent bu leneen wala ñu bàyyi ko. yooyu moom ci xam ne ah xamal ma ñaari xel ci kan. そこで、ね、やばいさんね。 Autem ce fai da, ai di, ai da Mai mă muta ce fai da, ai di, ai da Tu te muta ce fai da, muta ce fai da Mă mă sa pe lilac, su tu gheți să cin Nu păi ta cam ticu, ai di, ai da Mai mă muta ce fai da, ai di, ai da Tu te muta ce fai da Muta ce fai da, Nu am alset? lan la encore. kàngu bu ndaw. maag nu mujj may woo ba bu ndaw su ma soxlaa na xaar ba suba guddi na. ah tey nga dugg wax ak moom. lan laay wax ci lan. ah bu ndaw ma gis fees na. soo moytuwul nag dina fi tuuma def ci musiba naaru laay leen dara hmm. jàmm moom bala ngeen ko am dangay jot ci njaabu sinon jàmm du fi am. lii bu taw lu ma xam ma yee ci ay naaw. ah yow daa jëm yëgoo lii ci kër gi. lii ci kër gi lu mel na. xanaa soo seen nekk ci biir néegam gi di xaxataay moom jabaram mel ni chef de bande film indo sëru seen ñu nekk ci biir ak jabar nga xaqataay lan moo ci sama yoon lan moo ci nekk. Awa Badiane yow xamoo lan moo ci sa yoon ak lu ci nekk. yow Badiane démb sëru seen bañalu ma sama xay. waaw. waa léegi lu tax mu bañal ma ko démb tey mu nangu ko njaago ñun ñaa ñëpp ñuy jabar. waaw parce que njaago moo ko may jàmm moo ko may salaam yow may ko jàmm may ko salaam. charia waxul loolu de. lu fi indi waxu charia. rajo ñun ay jullit lañ ci te charia lañ tënk. bu ndaw est-ce que wax ci jigéen bu xëpp jëkkëram kafe bu tàng. déedéet xaw ma demal nga tëddi te nga may ñu jàmm. yaa ngi gis boo reetaane li nga def tey mooy boo ñàngalee xula da ngay ñàng bu dama lay ragal sax man mooy li ko dama ne la li ma dal yëpp yow la yow kese la ci la ki la mooy wax la kan moom doom si ñaar jabar du yow bu dem doon tey dama ko def. xam nga li wax de ak tey du ma ko mos a nangu ak loo ma mënti wax ak loo ma mën def pour convaincre te nag li la ñu wax paak bu ak moo koy daas jox la. vraiment mami affaire bu ndaw yi ñun duñ ci def dara sa xel dal léegi jeex woo naa sa bàyyi la ñu ñu jël si ko bis bu demee nag ba toog réfléchir bu ko mu dem ma dem jàmm ñooy da nekk fi kenn du nga tax coow li jeex. man nag damaa ndax bu ndaw mu démb ak bu ndaw tay dafa am changement ci man bu pare changement bi moom dafa gaaw. dara fiyaange rek la xanaa xamoo mbir boo ko te nga ko dafa yomb ci yow mais dafa am ñoo xamante ni moom ñu bokke mooy genre bu ma bokke te ma. am na ku nekk ku léegi ñaar joxe nañ ci yow bu loo bu génne ak sa des. si yow lay dépendre rek. waaye awa yaay awa yaay awa yaay. bu ndaw nelaw ba 10 heures passées ما سكلو عليا ولا خاص ما يبدل نعم انا مقدم واخر بسرعه xam naa dafa ñëw dem ci guddi ba mu digal su ma ko yàgg dalu nelaw boppam dafay nett am na nga xaar ko nan la nga xaaree dix heures jot na dama leen ubbee ko su yow wax ma woo su woon nag ma sama bopp exactement téléphone portable boobu xeer ba tey jii

mm-hmm. buntu néegam bi dafa tëjee tëj xanaa soo ko seen yaay dem liggéey ànd ak Saya saya ah Anak masih Eji mereka. Wih bah, hana sau da kuka yi da ya an Iya Yawa sampai saba yi da ya. Na nemo? ne kan. Wa, Berarti a gini na. Ni ni ko yanda, ak lolak dom def dem ci guddi bay nelaw ba seen ci kaw la. aso o u y ma demal nga fëgg yee yeewal ma koy morceau bi ne ko dama bëgg a dem m a r c h a looloo ma ñu lool a i ngi naaj di man tamit bu ma ko yee bu ma leen o ë g g de waaye dina ñëw I'm what do you want, <sighs> Dominic? Thank you. chéri koko taamu naa bii diwli damay lekk di ci bi chef rab amul morom dafa neex set sell ñaam joodo dafay duma daan jël maay béy bi mën nga soos defal chef dégg Deg ni docteur du ko ter maa ko ñam amul benn cholestérol oyof toll te du metti sa xol bu jën bi tey lu tax mu gën a neex maa ngi door a xam lu tax mu gaaw a jeex looy xaar jëlal pool saaf ci hider. tey si ngoon damay woo samay xarit chef Aïda. yaay chef ci is biir kër ak sa chef Aïda. thank you ID Aida ID ID Aida Aida malu burger ID Aida ma burger chef Aida Mayo chef Aida siap ya pun basi jen Moni mone chef.